asalaamaaleykum euh, mbokk yi di euh, gërëm di sant d'abord euh, toute la presse ngeen bàyyi seen lépp ñëw wuy si ñu ñu ñëwoon tey ci Parcelles Assainies pour benn activité politique wante ñu ne dañuy profiter ci occasion bi pour en même temps tamit communiquer ak askanu Sénégal en général mais particulièrement tamit ak askanu Ndakaaru Njaay di gërëm suñu mbokk yi fii ci Parcelles Assainies la coalition taxawu Dakar taxawu Sénégal ku lim juum wante maa ngi gërëm di sant di rafetlu bu baax a baax teewaayu monsieur le maire Madiop Diop di maire wu Grand Yoff di euh, rafetlu tamit teewaayu monsieur le maire Ibrahima Seydi des HLM di rafetlu tamit teewaayu monsieur Babacar Diop coordonnateur national du mouvement ADK ànd dooleel xalifa ku lim juum wante ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm surtout nos camarades des Parcelles Assainies woote bi nag lu ko waral mooy wax ak mbokk yi wax ak sénégalais yi wax leen dëgg bi dëgg bi mooy lan mooy yéen ñëpp dégg ngeen. njiitu réew mi le président Macky Sall biig fale ci jam Diamniadio mu wax wax bu am solo bu amul solo parce que dafa am solo ci ëllëgu Sénégal wante amul solo ci mbiru politique parce que fu président Macky Sall bëgg jëm moo tax ñu woote tey waxtaan bi ndax ñu mën leen ko leeral président Macky ci gàttal menacé wul kenn. président Macky Sall ci gàttal mi ngi ci logique mooy bañ a organiser élection te dinaa si delluwaat président Macky Sall nee na lu fi jotoon am mooy yàq-yàq yi ak fipp bi loolu du fi amati mu a wax ci leer lu président Macky Sall wax dëgg la lu fi am du fi amati du fi amati ñuy jël ay samba leen di jox ay gànnaay gànnaay yooyu dama bëgg a wax ci leer parce que dafa am ay gànnaay yu xeex ak ay gànnaay yu guerre gànnaay yu xeex mooy ay paaka ay xeer ay jaasi ak ay pistolet ak yu mel noonu wante dama ne ñun ñëpp gis nañ fii lu fi jotoon xew samba yooyu gànnaay yu ñu amoon mooy lu ñuy woyee des armes de geex amuñu njëgu jënd loolu xamuñu fu ñu koy jëndee ñoom seen bopp mënuñu ko manipuler donc ñu ko jënd di ko teg seen loxo yi di leen di di leen di entraîner pour ñu koy mën a manipuler rax si dolli dem jëli ji police pour police man leen aar pour ñu mën def seen ñaawteef dama bëgg a wax ci leer loolu effectivement du fi amati te man président Macky Sall lay waxal parce que moom la sénégal yi tànn tànn ñu fii ay. soi-disant partisan du président Macky Sall pour soi-disant ñuy nekk fii di ñu wax qu'est-ce qui va se passer le président Macky Sall le seul responsable de tous les actes que pose l'État du Sénégal lu tax nag président Macky Sall wax lu mu wax fële ci Diamniadio dama bëgg Sénégalais yi dégg ma bu baax a baax suñu jógulee lu ma leen waxoon ba ñu génnee ci élection présidentielle ci février 2019 mooy président Macky Sall fas yéenewul organiser élection tout au long de son mandat ci logique boobu la nekk parce que amul kenn fii biir réew mi bu mën a expliquer lu tax président Macky di xëccoo ak ak opposition organiser élection décembre deux mille vingt et wala janvier deux mille vingt deux te su ngeen xoolee lu opposition di proposé ak lu président Macky Sall di proposé daanaka weer sax doxul seen diggante weer. doxul seen diggante nit buy woote jàmm nit bu namm jàmm ñit bu gëm boppam nit bu namm def élection du xëccoo ak opposition du jàppante ak opposition ci lu toll ci weer wax ji mooy lan mooy président Macky buggul nammul organiser élection janvier deux mille vingt deux te dama bëgg a wax ji leer man duma waxantu. ma ngeen vaar nag Barthélémy Diaz lépp lu ma waxoon lépp lu ma waxoon ci président Macky Sall am na janvier 2022 nag mooy coupe d'Afrique ngeen may ma nag ma wax ak président Macky Sall football yorul réew football loisir la constitution du Sénégal moo ñu tënk constitution du Sénégal waxul Noël waxul pak waxul Tabaski waxul Korité waxul coupe d'Afrique constitution du Sénégal mooy suñu alxuraan mooy suñu bible le président Macky Sall daf ko nar a moo tax may ñaax opposition sénégalaise nañu jóg taxaw tem parce que waa ji fas yéenewul organiser élection parce que ku fas yéene organiser élection du xulloo ak yéen du xëccoo ak yéen ci décembre 2021 wala janvier 2022 wax ji mooy lan mooy janvier 2022 bu mu leen bëgg a yóbbu noonu excuse bu mu leen bëgg a jox mooy la coupe d'Afrique des nations où le Sénégal est qualifié et nous supportons tous le Sénégal te ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla may ndam équipe nationale du Sénégal wante lii di élection foog mu am parce que élection su amulee leneen mooy am moo tax président makisal bu muy wax su ngeen gisee bu baax waxul wax ko ci tubaab waxu ko ci tubaab daf ko wax ci wolof parce que suy wax ci wolof askanu Sénégal lay waxal suy wax ci tubaab nag nasaraan yi lay waxal te wax ji mooy lan wax ji ñoo ko moom wax ji mooy lan mooy waxu nappaate mooy waxu xoqatal mooy waxu bunduxatal mooy lu fi amoon du fi amati lu fi amoon nag daanaka du fi amati effectivement parce que duñ fi nangu benn nguur di fi wootee leneen ginnaaw démocratie duñ fi nangu benn nguur di fi woote dictature teg ci nag di ci teg nag yebeel ak nooteel duñ ko fi nangu wax ji mooy lan mooy police ak gendarmerie ñoom ñoo am droit wu lijjanti lii di kaaraange biir réew mi mais pas ay yi kon nag président Macky Sall su waxee lu fi am du fi amati ñuy biiral wax ci tamit lu fi am du fi amati mooy sambaboy yooyu duñu nanguti di toog leen di seetaan ñu leen di jox ay gànnaay ñu nekk ci dëkk bi di boom suñu doom loolu mooy wax ci dix ans ci ginnaaw song nañu mairie moo Sacré-Cœur mu am fa benn nit bu fa ñàkkoon bakkanam ba tey ñu ngi ma ciy topp tëdd naa ci kaso juróom benn weer ba tey procureur de la république moom nee na mi ngi laaj ci dossier boobu lu toll ci dix ans pour ma tëdd ko kaso wante bii yéen ñëpp gis ngeen quinze sénégalais quinze sénégalais ñoo ñàkk seen bakkan ils exprimaient un droit constitutionnel mooy droit à la manifestation ñëpp ñëpp ci teg seen bët kenn gisul policier kenn gisul ay gendarme ay samba boy la ñu gis avec des armes de guerre ñuy dugg ci ay kër di boom suñu ay doom loolu du fi amati président Macky Sall nag mooy xool lu ko mbir bi jaral mais na ko na ko na wax bi wax bi na leer ci euh, ci boppam lu ko mbir bi jaral ñun tamit nañu mbir bi tamit am tamit lu mu ñu jaral parce que nag noo yor réew élection naroon am ci 2019 defoo ko nga woote deux mille vingt defoo ko tey deux mille vingt et ñu ne la décembre mille vingt et un nga lank bañ nga ne da ngay dem janvier deux mille vingt ñu ne la janvier deux mille vingt deux boobu namoo ci organiser élection moo tax ngay wootee nappaate di ne lu fi amoon du fi amati soo organiser wulee élection lu fi amoon à la kulli àll lu ko yées moo fi amati parce que nag à partir de ce moment président Macky Sall il deviendra un danger public il deviendra un danger pour la stabilité de ce pays kon nag boobaa wax ji mooy lan mooy comme moom nammul organiser élection te ñun dañu namm jëlee fi président Macky Sall ci élection kon nag à la kulliyaal dinañ wuti yeneen yoon pour jëlee fi président Macky Sall les objectifs du président Macky Sall ci wax jooju bu mu wax mooy Dakar dama bëgg a wax ji leer Dakar vote depuis le 19e siècle Dakar dañuy voté fii depuis 1872 président Macky Sall ndaw na torop ku taxaw tey nekk Dakar duñ fi voté wala dakaar dañ koy tas kenn du ko fi nangu amul kenn kuy yeewoo Parcelles Assainies dëkk Parcelles Assainies nga yeewu suuba ñu ne la yow dëkkatoo Parcelles Assainies Grand Dakar nga dëkk kenn du ko fi nangu man mii Barthélémy Diaz maa ngi nuyu di ziar bu baax a baax ma mbokk yi nekk fële ci Yoff wante man dëkkuma yof dëkkuma yof te su ma juumlee tamit su ma mbokk Lebu yuy dëkk Wakaam ak Ngor ñoom tamit dëkkuñu Yoff dama ne lu président Macky Sall bëgg a woote Sénégal kenn du toog di ko seetaan kenn du toog di ko seetaan na wax ji leer wax ji nag xam naa journaliste di ngeen ma ñaan ma wax wax ji faram-fàcce ko ci nasaraan mais su ngeen ma ko mayee naa ko yemale fii ci wolof parce que comme moom waxul ci nasaraan bu ñu wax ci nasaraan parce que wax ji moom dégg na ko te ñu ko noonu tamit dégg dégg nañ ko wax na wax ji ñun tamit ñu koy fekk tamit ci wax jooju mooy lu fi amoon du fi amati parce que lu fi amoon suñ ko wootaatee ci dëkk bi lu fiy am mooy réew mi dina am ku ñu kay dina ala kuli al daal wala moom mooy toog ñun ñu jóge fi wala ñun ñu toog ci réew mi moom mu jóge fi te ñun fas yéene jóge ci réew mi moom nag mooy xool lu ko mbir bi jaral la ville de Dakar ne disparaîtra pas notre campagne pour les élections locales à Dakar cette campagne débuté Et je la famille politique du leader Khalifa Ababakar Sall est candidat à la mairie de Dakar avec tous nos alliés de l'opposition. Et à ce titre fu may daanele mooy ñu ngi tàllal suñu loxo yi suñu mbokk yi nekk ci opposition bi ñëpp nag ñu ngi woo ñëpp di woo tamit waa société civile surtout nag di ñaax ndaw yi nañu jóg taxaw tem parce que nag seen carte électeur dina génn parce que loolu mooy yoon te élection da ngeen ci noro bokk kon nag inscription yi su commencé na ngeen jóg ngeen góor góorlu waxtaan ak mbokk yi waxtaan ak dëkkandoor yi waxtaan ak ñëpp ñëpp a jóg dem bindu dem leen nag bindu nag ci commission électorale yi bu leen dem ci commissariat yi parce que commissariat yi moo tax ngeen di am ay carte fu ñuy bind yéen daanaka amu leen droit wu voté na ngeen dem bindu ci commission électorale yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di jégalu nag une fois de plus ci kàddu yi parce que jàmmal la ñu namm jàmm la ñuy dox jàmm ci la lépp a xaj wante président Macky Sall il faut qu'il comprenne que troisième mandat dañ ko fiy tere jërë ngeen jëf